Sénégalais waaw sénégalais baa ngi nii de. attention sénégalais menace menace. menace. d'Afrique au Sénégal pour les sénégalais. ah mais dama leer cara di sonn. Modou dem nañ ba ñëwaat waa Yëmbal waa Yëmbal laa bëgg a wax ak ñu waajal. moo doon indi dem nañ ba ñëwaat waaye yëngal waaye yëngal naa bëgg nga wax rek ñu. ñu waajal moo doon indi dem nañ ba ñëwaat waaye yëngal waaye yëngal naa bëgg nga wax rek ñu. ñu waajal. loolu lii lii kenn bi président ku fa am loo di wax bi président saa yi. <laughs> merci beaucoup. parfum yi neex yi. Eh, jërëjëf lépp ci biir. mais ñaari kay gànna. waaw ñaari kay gànna. waaw ñaari kay gànna. waaw ñaari kay gànna. ah daa mel ni signature fay na pire de ah. waaw mais signature dafa ala daw me. waaw waaw Amar. Ah. Ah, Lo ah. ngi nii. waaw ba sëñ Bamba laa sa sa jolof ci kër. <laughs> Ali ça bouge pas ça c'est Alioune Seye 2 waaw loolu dafa leer ki connaît pas mais man nit ñi ma bëgg man man yow laa bëgg man yow laa bëgg man non Diaz yaay borom pilier déggal loolu ay Diaz borom pilier maa ngi toog si pilier toog leen seen pilier waaw waaw waaw waaw lii da leen defal Sénégalais yee ah, Sénégalais deux trois. Fais tout encore la à de Le de de Si pas les waaw sénégalais baa ngi nii de. attention sénégalais menace menace. menace. d'Afrique au Sénégal pour les sénégalais. waaw ah, mais dama leer cara di sonn. Modou yi dem nañ ba ñëwaat waaye yëngal waaye yëngal laa bëgg a wax rek ñu waajal. Ah, Modou yi dem nañ ba ñëwaat waaye yëngal waaye yëngal laa bëgg a wax rek ñu waajal. Ah, moo doon indi dem nañu ba ñëwaat waaye yëngal waaye yëngal naa bëgg a ah, bi président ku am loo di bi président saa yi. merci beaucoup. parfum yi neex yi. Eh, jërëjëf lépp ci biir. mais ñaari kay gànna. waaw ñaari kay gànna. waaw ñaari kay gànna. waaw daa mel ni signature fay na pire de ah. waaw mais signature Amar. waaw mais signature dafa ala daw me ah. Ama Modou Lo ah. ah oui. fay na pire ah say bëtu boy ngi nii. waaw gis nga de ah. defar kàcce bi rek. waaw barke sëñ Bamba jolof ci kër. sëy. doy foo doy caaxaan. fay na de. fay na nice. Jadi ñu ko pima. Ali ça bouge pas ça c'est Alioune Seye 2 waaw loolu dafa leer tu connais pas mais man nit ñi ma bëgg mooy man yow laa bëgg man yow laa bëgg mooy non Diaz yaa borom pilier déggal loolu ay eh, Diaz borom pilier bàyyi toog si pilier toog leen seen pilier waaw waaw waaw waaw lii da leen defal